boo rombee man maay alaaj taal ngol ngol sama inspiration c'est en fonction de li may romb ci kër gi j'ai pas de sujet j'ai pas de programme j'ai rien prévu alors quand tu me rombes tu sais que je vais te citer ngay mel ne bonhomme Setelem boobu noonu noonu di def publicité Setelem bi ak sa verte <laughs> maa ngi leen di nuyu di leen ziar nous espérons que vous allez bien et euh, nous disons merci beaucoup à Studio et ses invités dans la première partie de votre matinale le Good Morning C'était avant, bien entendu, euh, Matin Bonheur. Et comme tous les lundis, nous sommes avec Bachi Drizi. Bachi Drizi, trop bien habillé aujourd'hui. Drizi, salam alaikum. salaam. mais la moo tax ngay. non mais tu es bien habillé toi. <laughs> barki Rasulullah musée des civilisations africaines laa foogoon bi nga tellement bien décoré. oui oui ah non mais sérieusement tey tey moom fi ma génne dafa xaw a aare. bàcc seer naa ñoo aalu quoi ni ma xam ah. jël ci affaire yi bagages yi pour promouvoir xam nga li ñuy def. non moo tax démb jaar fa quoi. kon ba defe naa nga foofu ah. VIP shop moo fi jaar Pikine la nekk. très bien cimetière yi gars yi xam nañ ko. <laughs> bon d' abord avant tout damay nuyu ñëpp euh, téléspectateurs yi ak euh, internautes yi maa ngi leen di nuyu di leen ko kon ni ñu koy defee chaque lundi euh, dans Good Morning ñëw indi rubrique les post de Driss yi comme chaque jour en même temps xool commentaire yi lan la gars yi wax si post bi affaire yooyu noonu xam nga. laajaale Pape Sidi aussi lan moo ciy xalaatam parce que moom lépp rek du moom mi ngi si quoi lépp la def <laughs> kon gars yi maa ngi leen di ziar da nga may yoo xam ne je ne suis même pas au courant je suis au courant le jour où tu me jiñ ça alors euh, tey nag euh, on a commencé avec le sourire et j'espère qu'on va continuer avec le sourire euh, dañu am ay problèmes encore yu ñu leen di exposer c'est vrai que Sénégal dafa mel ne wopp màgget wet goo laal day miti Euh, Cheikh Tidiane Gaye mu ngi bokk ci kuréel googu ñuy woowee FRAPP ñoom Guy Marius Sagna ñoom Abdoulaye Seck ainsi de suite ainsi de suite FRAPP nag dañuy faral di sémb ñoom léeg-léeg ay xeex yoo xam ne dañuy gis ne injustice dafa am fu mu féete ci askan wi ñu jug xool nañu ca mënee ñu bay ci seen waar bu baax Cheikh Tidiane Gaye est venu de Tivaouane aujourd'hui exprès pour nous parler de l'affaire de Tobène Tobène nag ay village la yoo xam ne ñoom ñoo ko constitué ay village wala ñu nangooti seen suuf ba fi mu nekk nii nawet bi xamuñ fan la wànnante di mu ak gëtëm qu'en ne il de la réalité lan moo am lan moo xew foofu fan la problème bi jugee fan la toll naka la ñuy def ba am saafara euh, yéen ñi nga xam ne yéen ñu topp mën ngeen cee am ay leeral dans quelques instants bàyyi leen ma mën nuyoon teg Cheikh Tidiane mi nga ne Fall lay sant ba keroog muy jug ci plateau bi parce que gay moom xëy di ko tudd euh, dafay umaate Cheikh Tidiane nuyu naa la. maa ngi lay fay Pape Sidi Gaye <laughs> di déggal déggal déggal euh, déggal li mu wax déggal li mu wax li nga wax noonu baaxul <laughs> nañu bàyyi noonu xam naa ne di ma may loolu boo Cheikh Tidiane Fall tuubal li nga wax non gan nga am s'il vous plaît ziar nañu la di ziar aussi euh, ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ñuy teelu tey ci suba si à travers votre émission di mhm. lu aussi taxawaay bi taxawaayu Bathie Drizzy taxawaayu aussi Pape Sidi Fall mhm. taxawaayu euh, Pape Sidi Fall surtout sur les questions yi nga xamante ni dafay la plupart du Euh, euh, espace bi ñu nekk. mooy mm. euh, Sénégal muy Dakar di aussi et surtout les régions yi nga xamante ni des fois dañ leen di fàtte ci yenn question yoo xamante ni fa lay xewee et malheureusement. duñ ci am la population duñ ci am yenn information yi nga xamante ni moom lañ ci war a am tey ñu teew fii pour rek leeral selon nous selon aussi les informations yi nga xamante ni ñoom la ñu moom la am par rapport ak problème bi nga cité léegi muy problème mu Tobène ak problème mu maa ngi nuyu Guy Marius Sagna Guy Marius benn sénégalais la boo xam ne jàng na ba am xam-xamam mais jënde lépp luy euh, noblesse de vie laa koy mën tuddee wala lépp luy aisance jënde ko engagement engagement nag mooy liggéey bi gën a métti fii ci Sénégal rawatina Afrique ndax boo koy def nit ñi ci seen bopp la ñu lay maanaam dañuy xalaat ne ñoom loolu bu demoon ba koy def lan lañ ci mën a am lan lañ ci mën a ut wala lan lañ ci mën a gratter moo tax képp ko ñu gis nga am benn engagement bi dañuy jàpp ne dafa am leneen lu laxasu ci ginnaaw soit dafa am lu motiver loolu ngay def wala dafa am ku la motiver wala dafa am ñu nekk sa ginnaaw wala ñu jiñ la sax opposition keroog kon ci Facebook la Guy Marius Sagna bind bataaxal di yëkkal ay abonnés ak ñi nga xam ne ñoom ñooy topp combat yi muy sembu ne 23 villageois de Tobène ont été déférés aujourd'hui à Thiès car ils défendaient leurs terres contre les ICS qui veulent les accaparer à vil prix, avec la complicité de l'État. Premier paragraphe. Deuxième, Guy Marissagna revient en disant il est mentionné le procès verbal PV de la gendarmerie de Mboro que c'est Aar Li Ñu Bokk qui manipule et demandons à la, nous demandons à la gendarmerie sénégalaise de ne pas de la politique politicienne. Ces 23 villageois ne sont pas euh, ne sont pas que des patriotes, c'est l'État qui, doit, qui n'a qu'à chercher le coronavirus et arrêter cette chasse à l'homme. Guy Marius Sagna s'exprime en disant je m'exprime, j'exprime toute ma solidarité aux populations de Tivaouane qui résistent, euh, qui résistent à l'oppression de l'accaparement foncier. En tirant la sonnette d'alarme, il dit j'exige la libération dans les meilleurs délais des 23 villageois qui ont été arrêtés par la gendarmerie. J'exige l'ouverture dans les meilleurs délais des négociations en vue d'un prix juste payé aux paysans de Tobène kon mbokk yi bu ko faram-fàccee ci kàllaamay Kocc vi Guy Marius Sagna kenn la ci ndaw réew mi koo xam ne yàlla dimbali na ko muy mën di sémbu yenni combat te combat yi da koy jaral ñaare mu dem ba yegg ci ñu ne ko ràpp ci kaso tëj sénégalais yépp ànd ak moom tanaan naan bàyyi leen Guy Marius Sagna bàyyi leen Guy Marius Sagna li ñu ko tëjee lii la ak lii bërki démb bi ñu ko mujjee jàpp euh, li gën a siiw ci jàpp bi gën a yàgg xëy na ci carrière moom mooy aar li ñu bokk courant bi cher na euh, ak yeneen yi nga xam ne yooyu mooy li ñu moom ci alalu réew mi ñu koy salfaañe am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy topp en ce moment même ci Facebook bi euh, Diarra Janko Dañoko maa ngi koy nuyu bu baax Jean Soya mbay Euh, mu ngi nuyu euh, Cheikh Tidiane mm, fier de vous yi di tout Tivaouane vous suit merci beaucoup waa Tivaouane ñu ngi leen di nuyu bu baax Arabi Kassambé bonjour je vous suis depuis Fouta jalon euh, ñu ngi nuyu waa Fouta Djallon ndox mi neex na ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm Ben Kane bonjour good morning à vous Bas Ba Abbas bonjour Adja Hadjatou Diallo merci beaucoup d'être avec nous maintenant nu allons faire ce qui est très basique ce qui est très simple pour les téléspectateurs ñu comprendre toobeen mi ñuy dégg ne dafa am problème mu suuf ba seeni villageois dañu nangu seen suuf suuf soo sa lan la waaye balaa boobu Cheikh Tidiane toobeen fan la nekk. Euh, toobeen Pape Sidi boo leen ko déggee mi ngi nekk ci euh, département de Tivaouane ci euh, commune commune bu Meewaan. wan pour rek localiser ko mi ngi nekk ci diggante. pire bi ñuy waxee pire gu rëy. Mhm. ak euh, euh, Tayba Tayba Ndiaye. Mhm. ak euh, ak Mboro donc ñooñu ñoo ko seq. Meewaan nag moo polariser ay village yu ci mel ni Tóobén googu ñuy wax. Mhm. fala aussi. Kër Mëgëy bi nga xamante ni aussi dafa nekk ci dafa bokk ci problème bi parce que problème bi peut-être mën nañ ko tuddee Tóobeen waaye li mu polarisé ci ay village du du Tóobeen kese dafa bari mm-hmm. te village yooyu yëpp ci commune euh, bu Meewaan la ñu bokk. Mm-hmm. donc euh, Tóobeen mi ngi nekk foofu mm-hmm. euh, Tóobeen buñ ko mënee xayma presque am na 4000 habitants donc du village bu ndaw. te boo fa accès aussi. di xam du village boo xamante ni comme ni ko nit ñi di jàppee village village boo xamante ni ay euh, boo fa demee ay sàkket ngay gis ak ay kii déedéet euh, Tobène boo fa duggee doo xamee fii village la wala du village. c'est-à-dire ay tabax en dur la ñu am ay kër yu sàmmoo ak euh, yoon ñoo fa nekk en dur ay étage ak i terrasse. donc c'est pas un village c'est pas n'importe quel village. d'accord Cheikh euh, Tidiane Gaye moo bàyyi ko ba Tivaouane ngir ñëw yëgal ñu xamal ñu dama wax démb euh, ak Abdoulaye Seck bu FRAPP ak Cheikh Tidiane defe naa waxtaan nañ ci ma ne ko sénégalais yi bañu ñoo bokk combat boobu ak waa Tobène waaye léeg-léeg ñàkk am information dafay indi lool donc maa ngi ñaan ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan live bi euh, ku ci mel ne Ousmane Gueye Ndiaye Oro Akon Abuja Saliou Thiam. Euh, Aliou Fall euh, mu ñuy seetaan depuis Arabie Saoudite wala Saliou Thiam mi ñuy seetaan depuis Gabon Fall euh, Safko Sambakor Saliou Thiam ainsi de suite ñëpp maa ngi leen di ñaan képp kuy seetaan ñu ngi lay ñaan nga partagé live bi Facebook ndax dafay permettre ñi nga xam ne amuñoon information bi ñu am ko pour mieux analyser le problème il faut le connaître pour mieux partager le combat il faut nga xam combat bi lan la ak lan moo nekk vraiment le problème léegi Tóobeen am nañu problème village la bu ñoo xam ne ay cultivateur ay baykat la ñu nangu seeni tool ba koo jox ICS en réalité dégg naa problème bi san ne date pas d'aujourd'hui lan mooy problème mu village boobu exactement est-ce que mën nga ñu defal genèse problème bi ba fi mu tolloon la euh, Pape Sidi pour revenir à l'historique <coughs> euh, en fait ça a pas démarré aujourd'hui peut-être tey la ñu ci bari jot ci information bi jot ci problème bi mhm. mais on peut dire et euh, 2018 laay wax rek mais je suis pas sûr à niveau que ni affaire bi 2018 la commencé donc 2018 rek commencé gis ñun à notre niveau au niveau de Tivaouane que ni des populations de Tobène se sont levées Tobène plus particulièrement nag parce que dafa mel ni problème bi sax Tobène la ëppee problème yoo xamante ni ça avait rapport avec l'électricité Tobène amul courant te à côté di boo fa demee di nga gis poto yi sax da sax dañ koy dañ koy poto courant yi sax dañ koy romb à côté à quelques encablures de Tobène donc usine baa ngi usine usine foofu di di di di dox Tobène seen ndox demeewul deme deme demeewul noonu donc depuis 2018 ñoom ñu taxaw takk seen ay fulaar yu xonk peut boo duggee ci euh, net bi di ngeen gis yenn yenn yenn yenn information yi. Mhm. di marche c'est-à-dire ci biir dëkk bi la ñuy marché. loolu 2018. loolu depuis 2000 mai 2018 la loolu la la loolu amoon. Euh, ñi leen ñi leen di dooleel ñu mu waa FPD FPD di kuréel goo xamante ni dafa regrouper plus de quarante et quelques villages yoo xamante ni lépp ñëpp ñu ngi bokk ci euh, commune euh, commune Meouane ñu commencé di wax waxu ñàkkum ñàkkum ndox ak ñàkkum courant ci dëkk boobu noonu pare guñu ci ICS ni dafa bëgg yokk la front minier c'est le front minier boo ko déggee mooy kamb bi nga xamante ni moom la ICS di gas pour jël phosphate bi ci pour jël phosphate bi jël phosphate bi ci suuf si maanaam gas nañu fi nga xamante ni amoon nañ ko ba pare te fi ñuy gas nii ma fàttali leen ni ay village ñoo fa nekkoon kamb ga boo gisee peut-être image ma lay envoyé li ma la envoyé dem di nga ko ci gis voilà di nga gis kamb goo xamante ni kamb gu rëy la kamb mm-hmm. googu ay village ñoo fa nekkoon mbaar jóob yi ngay dégg mm-hmm. voilà fii ngay gis nii ay mbaar jóob yi ngay dégg ay mbaar njaay ay euh, yeneen village yi nga xamante yu mel ni ay ndóoyeen ñu ci bari ci kàmb gi la ñu nekkoon donc fii ñu gas yëpp ay village la fa nekkoon ay village la fa nekkoon mais aussi ay armée a fa nekkoon c'est-à-dire village fu ñu wax village ay nit fu ñu dëkk dañ fa ay armée dañ fa am fu suul ay nit donc yëpp dañ fay jële ay nit jële ay armée et tout ça benn affaire mooy dañ fay jële aussi ay tool donc loolu am ñu ni dañoo bëgg ñoom waaye ICS dañu bëgg ñoom lo yokk le front minier bi ñuy bëggee yokk bi ñuy bëggee yokk le front dañuy bëgg la euh, la règle voudrait que ICS ak benn commission boo xamante ni mi ngi nekk au niveau de Tivaouane constitué par le préfet le sous-préfet ak euh, euh, direction de l'urbanisme bi nga xamante ni moom la moom moo nekk monsieur Mbaye jiite ko moo nekk Tivaouane ñu def benn commission boo xamante ni moom mooy saytu suuf si nga xamante ni moom la waajib moom la ICS bëgg ñaata ci suuf la bëgg bu bëggee ci suuf suuf yi mu bëgg ci yan tool lay dal yan tool lay dal ñu woo ñooñu nga xamante ni ñoo séq tool yi ñoom moom tool ñu waxtaan ak ñoom donc balaa ñuy avancé ci sur la question donc waxtaan. ñun li ñuy wax mooy loolu te depuis lors ci loolu lañ toll waxtaan na ICS ak la commission la waxtaan ak la ak ak ak les populations population yi ne leen nii la ñu mën a joxe suuf si. dafa am benn question boo yi nangu nañoo joxe suuf si. population yi bañu ñu joxe suuf si parce que population yi xam nañu suuf si moomuñu ko waaye ñu si bari dañuy dégg ñu ni te loolu je crois que moo tax sax moo tax initiative bu mel ni Pape Sidi am solo mooy ñu ñëw ñi nga xamante ni xam nañ ci as tuut ñu leeral mooy dañu jàpp ni ñu bari dañaan suuf si de domaine national la domaine national kenn moomu ko bu ko état bëggee da koy soxla da koy da koy da koy jël waaw bu suuf si nekkee domaine national état soxla ko waaw ci ci fànn boobu waa suuf si ñuy wax ni du domaine national domaine ICS la boo xoolee ci fa euh, accord yi nga xam ne ko am ak état du Sénégal ICS fu mu gis phosphate ci zone boobu noonu mu nekk département de Tivaouane Tobène Nord ci dans les premiers accords bi nga xamante ni moo amoon ci euh, moo amoon ci protocole d'accord bi nga xam c'était en 1988 boobu Baba Pierre Babacar Kama moo nekkoon euh, moo nekkoon moo nekkoon ICS. loolu li ñu ci fa li ñu ci li ñu ci bindoo li ñu ci li ñu ci li ñu ci fàggu woon mooy. ICS fu mu soxla suuf ci périmètre boo xamante ni ñu ngi ko localiser ci département Tivaouane ci Tobène Nord donc c' est bien c' était bien délimité ci Tobène noor lu mu fa soxla da koy jël en profondeur comme dans un périmètre boo xamante ni mi ngi tolloon ci presque dix sept et quelques hectares dix sept et quelques hectares au au auparavant. c' est à dire au début maanaam loolu la bëggoon yokk. loolu moo nekkoon ci loolu moo nekkoon ci accord yi nga xamante ni moom la signé ak moom la nekk partenariat si euh, accord de partenariat yi mu signé ak le ak le gouvernement Sénégal donc man li may fi may attire attention ñu bari mooy suuf yi ñuy wax ICS ci boppam dafa jàpp ni moom moom moom suuf yooyu yamul foofu noonu dem na ba dépassé fi ñuy wax Tobène dem na ba dugg léegi ci quartier yi nga xamante ni Tivaouane la ñu bokk parce que Selko Dieng moo nga xamante ni c' est un nouveau village rattaché c' est un quartier bu ñu rattaché ci commune de Tivaouane Selko Dieng dem nañ fa Selko Dieng euh, école bi école bi ñu tabax ci ginnaaw village bi boo ko ba ngay taxaw ci hôtel bi di euh, ci école bi di gis tableau bu ICS teg bind fa domaine des ICS donc ñuy xamal nit ñi que ni fu ñu gis domaine des ICS te boo duggee ci zone boobu 100 mètres yoo daw gis ñu teg tableau ne domaine voilà mooy fii ñu waaw fii fii fii nii lii nii moo nekk ci ginnaaw euh, Selko Dieng donc lii mi ngi ci biir Tivaouane donc di attention di euh, attirer attention waa Tivaouane donc di leen wax ni le risque est la donc à Tivaouane présent euh, beneen affaire mooy Euh, li yamul fii mooy la nga xam ne cent yoo dox ñu ni domaine ICS domaine ICS donc nag on parle plus de domaine national on par du de domaine des ICS. domaine de ICS boobu moom la ICS taxaw tey ne suuf si suufoom la moom waxaale waxaalewul lool léegi li mu bëgg mooy ñi fa nekk liñ fa def ñu ñu ñu ñu liñ fa am. ñu fay leen ko lan lañ fa am ay too ay ay lañ fa bay maanaam ci suuf si lañ fa bay ak lañ nekk ca euh, kaw suuf sa muy garab ya garab bu ci nekk ñu ni xayma buñ ko xaymaa temps lañ ciy fay suuf si ñu ni hectare bu ci nekk temps lañ ciy fay hectare bu ci nekk boo ca bayee ñam bi ñu ni temps lañ lay fay boo ca baree bayee dugub ñu ni temps lañ ci temps lañ lay fay boo ca bayee leneen ñu ni temps lañ temps lañ lay fay loolu noonu la moo nekk au cœur du problème mooy maanaam comme ni nga ko waxee waa Tóobén waa Kër Mëgëy ak waa Màkka Kicaan ak Mbengeen d'accord nañu bàyyi suuf si nga xamante ni moo leen jotale ak ICS waaye ci kaw waxtaan yooyu waroon am mu am ba sotti sotti gi mooy mu am solution solution bi mooy bu ñu ne leen ne un million cinquante mille lañ leen di fay ci hectare bu nekk noonu déedéet nañ ko yokk parce que un million cinquante mille yooyu am na ñu ci fay am na ñun ci fay lu ko ëpp te ñooñu noonu. ba loolu mètre carré bi deux mille francs la. on préfère même pas faire les calculs da boo duggee ci calcul sax da mujjee da ngay mujjee jooy da jooy noonu la situation bi méttee li ko gën a métti mooy ñu ni euh, garab ya ca loolu moo gën a métti ci situation bi nag moo wax la Pape Sidi mhm. li gën a métti situation bi mooy dañu ni léegi même bu fekkee li ñu lay fay ci mètre li ñu lay fay ci hectare yi doyu la léegi da ngay xool lan ñaata garab moo nekk sa ci tool bi ñu fay ñu ñu ñu xayma ko ñu fay la ko mhm. barème amoon na barème de 1974 1974 boobu ñun ñi ñëpp kenn juddoogul am na barème ci diggante bi 1994 ok 1994 fekk la ñu ñu fekk euh, junni doon faj 1994 tey ju fukki junni mënu ko mënu ko mënu mënu mënu koo faj. am na ci diggante bi boo xamante ni ICS d' accord na ci le euh, le 30 octobre 2000 de de l' boobu dépassé nañ ko ñu ngi tey ci 2020. 2020 ñu ngi ci benn barème boo xamante ni ICS noona moom la d' accord ñi woo sa ñeneen ñi euh, euh, saytu waxtaan wi war nee nañu d' accord nañ ci waaye kooku ñi nekk ci village mënuñu cee d' accord wax ma barème barème bi la la barème boo xamante ni yow ñun la garab gi nga xamante ni moo fa nekk bu dee mango ñun la cinquante mille lañ lay fay bu dee darkase ñun la euh, vingt cinq mille lañ lay fay. Mhm. darkase ak mango yéen yéen a koy xeb yéen ñi nekk Ndakaaru de mais ñoom ñi nekk ci village ñu nekk Tivaouane xewuñu darkase ak ak ak mango mango. da leen doon dundal ñaar dañ ciy raas dañ ci raas ñaari yoon mu leen di dundal at mi yëpp darkase dafay meññ meññaat nga ci witt di jaay di dem ñëw ba ndakaaru di ko jaay di ci dund at mi yëpp ICS joxu leen dërëm mhm. ICS Tobène la muy rëy rëy rëy plus de quatre mille habitants kenn la fa jël muy chauffeur Tobène kër goo dugg am na chauffeur ñëpp ay chauffeur la ñu on dirait à Tobène kenn la fa jël ci chauffeur to to to to Tobène tóobeen du ñu nelaw ndax bruit bu euh, front minier boobu di def ci ci ci ci ci dëkk ba bu machine yi tàkkee rab yi ci àll bi ñooy daw dugg ci biir dëkk bi ci dëkk boo xamante ni amul lumière. amul courant amul ndox. amul courant am na ndox waaye ndox ma dee ko dégg ndox ma dañu ne waa ICS ñoo ne ñu fi andil ndox parce que dañoo ñooñu dañoon gas ay teen tey Tivaouane li ko wër lépp. Guy Marius Sagna mi ngay wax xam na ci dara il a été a pas il a pas il a pas il y a pas il y a bi nga xamante ni Aquatec am na ko par rapport ak ay forage fa nekk Aquatec je suis sûr que ni Aquatec la tax ñuy yokk ndox mi ci ci ci ci village yooyu c'est parce que forage ya ca nekk ñoo mënutu la am ndox ci nap phréatique bi nga xamante ni moo nekk ci département léegi léegi baal ma ma laaj la ay question yu simple rek pour nga jëm ñu ci indil leer ma fàttali ñiy seetaan ne Cheikh Tidiane Gaye moom moo bàyyi ko diwaanu Tiwaawoon bokk ci FRAPP ngir ñëw indil ñu ay leeral ci problème mu tëwoon bi ndax dama jàpp ne combat balaa nga koy songu il faut nga xam lan moo ci ne dëggantaan Tóobén dëkk la bu nekk fii ci boori Tiwaawoon village la boo xam ne la fa dëkk ci xayma war na toll ci ñeenti junni doomu aadama ñoom nag bay lañu am ak sàmm géej jegewu leen ba ñu mën a napp ndax kayoor la waaye ñoom seen suuf dañu gis ne we genn wàll gi ICS daf ko commencé nangu ci ñoom ci nanguwun wu dëppewul yoon ICS ma fàttali ñuy seetaan ne moom mooy industrie euh, chimique du Sénégal euh, Cheikh Tidiane léegi le problème moom mooy dañu bëgg waa Tobène ñoom nangu nañu joxe seeni suuf ñoom bu ñu joxee seen suuf lan la ñuy amee revenu xanaa nekkuñu ay baykat amul Pape euh, Pape Sidi foofu damay may dama lay ñaan nga may ma tuuti rek ma ma jouer le rôle de journaliste la dedans Pape Sidi tey yaa ngi liggéey yaa ngi fayeeku Euh, damay xayma rek euh, yaa ngi fayeeku un million cinquante mille le mois booy fayeeku un million cinquante mille néew ma Pape Sidi un million cinquante mille lay fayeeku de mhm. booy fayeeku un million cinquante mille le mois mhm. ma ne la par exemple tey euh, prime ñaata nga ni ma prime de dinaa dinaa am ba mën naa am prime ba deux cent mille mois man la mhm. ok donc ça fait un million deux cent cinquante mille man la euh, tey yenn sax yi nga am ay muccaat man la mhm. muccaati ñaata nga ni ma muccaat de mën naa am lii ak lii ak lii mhm. des fois ci kii nga gis loo xamante ni du sa liggéey du sa dara mais di nga ci am as tuut euh, Pape man la euh, léegi am nga di nga am di nga am prime mais dinga nga am treizième mois treizième mois ñaata la nga ni ma treizième mois naa am temps ñu xayma loolu lépp ne la Pape Sidi Euh, li nga fi wax lépp le mois donc mën nga am tu peux te retrouver ak 2 millions yu manqué 15 000 francs nga ni waaw ñu la donc donc on va te donner 285 000. Hum? 285 000 nga bàyyi liggéey bi. comment ah. tu vas damay bañ ba pare xeex. donc li ngay digal tey moo aatoobeen mooy ñu bañ ba pare xeex. ñun tamit li ñu leen di digal mooy ñu bañ ba pare xeex. bañ ba pare xeex. léegi Pape Sidi ah, ma ma nga may ma tuuti. waaw daanaka xam nga lu wax lu ma jox la exemple boobu hmm. noonu. tey dañu ni la. bay mooy euh, foofu la waa Tobène amee revenu. Mhm. ci mbay. waaw loolu laa wax dañu ni la léegi nañu bàyyi tool yi nga xamante ni moom lañ doon moom lañ moom ñoom ñoom moom lañ doon bay. di ci amakus néew di ci dundal seen njaboot di ci fayal seen ay doom ñuy jàng loolu loolu lañ leen ñu bàyyi ko ñu jox leen million cinquante mille ci hectare bu nekk ak garab yoo xamante ni amatu fa. garab yoo xamante ni jafe na nga gis baykat ci suñu méthode yu primitif yi. muy mhm. bay un un hectare. jafe na jafe na. Uh-huh. jafe na hectare yombul de. ectare yombul jafe na. ba pare garab yooyu ñu lay wax ne lañ ko maanaam mu li may woowee muccaat mooy garab yi yi may woowee muccaat mooy garabu citron yeeg garabu euh, papa yi nga xamante ni nee nañu bu ci nekk mën nañ ci fay vingt cinq mille li may woowee prime mooy garabu mango yi ak garabu derka ak garabu garabu derkase yi maanaam ñooñu loolu ñun lañ ko dinañ leen dinañ leen ko ci yokkal loolu amatu fa Pape Sidi. Uh-huh. loolu garab yooyu ñuy wax amatu fa xamal tax amatu fa parce que ICS mooy dégager la pollu une pollution boo xamante ni dafay rey gis nga image yi ma la envoyé. Mhm. dañ ko génne garab yi mango yi dafay dee ba woo koŋ taxaw ne jodd kenn mënatu ci am dërëm derkase yi dem nañu kër mëgay bu ñu la wanee les images qu'ils avaient ba ñuy da bay derkase dans un projet boo xamante ni dañ leen ko dañ leen ko sumbaloon à kër mëgay dañu doon am derkase tout toute l'année di arrosé arrosé am derkase toute l'année di jaay koo ci làmb poosam di nga fekk deux cent mille ci ci ci ci ci poosam dañ doon dañ doon duy euh, oto ba mu fees ak ay der kese derkase derkase ñaar la da ngay jaay doom bi jaay jaay jaay jaay jaay jaay xoox bi mhm. léegi lépp ñu ko ci doon am amatuñ ko ICS ray na garab yoo ci nekkoon yëpp ba pare ñëw fekk la ak sa suufu kese nga am amatoo loolu bay ñu ne léegi suuf si la nga ñuy jox der derkase yi fa nekk dañ la fay léegi am na alternative wala amul alternative alternative bi moo ñoom seen alternative mooy maanaam bu ñ bu ñu bu ñu par exemple bu ñu ne la gars yi di am parce que par exemple bu ñu jëlee le cas de Ndengeleer Babacar Ngom nee na booy bay ñetti weer moom mun na def ay pexe ba villageois yi nekk Ndengeleer mën a bay année bi yëpp loolu ñu bëri rafetlu ko mais est-ce que am na alternative venant de ICS pour les habitants de am na alternative pour les sénégalais yi nga xamante ni ñooy jël suuf ci sénégalais mooy comme l'exemple que tu viens de donner mooy exemple Babacar Ngom Babacar Ngom il a proposé des solutions c'est pourquoi des sénégalais se même mis à son niveau à pour défendre. défendre li muy wax Babacar Ngom. c'est parce que y a point yoo xamante ni war nañ ko ci mën a défendre war nañ ko ci mën a def war nañ ko ci mën a défendre. Mm-hmm. à à Tobène il y a absolument rien du tout qui leur est proposé à part li ñu leen li ñu leen li ñu leen di fay. Mhm. Babacar Ngom li mu tax may euh, li tax may euh, bëgg di indi toujours kaawu Ndengler. Mhm. kaaw Ndengler bi ñuy wax ba ñëpp di ko euh, ba ñëpp di ko kawti kawte boobu ba léegi lu ko gën garaaw. lu ko gën a lu ko gën a lu pire moo xew toobeen. ba Ndengler ce sont des sénégalais c'est un Babacar Ngom sénégalais avec ah contre des sénégalais pure souche ndengaleer ñu dëkk ndengaleer ñoom ñoo bañ a joxe seen suuf. ñoom dañoo bañ joxe seen suuf ñii bañu ñoo joxe suuf ba pare kañ koy jox du sax sénégalais ce sont des indiens ce sont encore des étrangers pourquoi à chaque fois l' état du Sénégal bu fekkee ñaari sénégalais ñooy xeex mu bëgg a mën a jox dëgg jël jël dëgg jox keneen. jël jël jël jox jox ko alors que bu fekkee sénégalais ak euh, étranger mooy xeex mu toujours il se met du côté des des des des étrangers. mais est-ce que état bi dafa nekk du côté des étrangers sur le état bi dafa nekk du côté des Sénégalais comment naka la état bi nekk parce que le représentant de l'état mooy Aliou Ndiaye le ministre de l'intérieur waaw quand il s'est déplacé au niveau de Tobène parce que il y a eu des antécédents dafa am antécédent dans la mesure où dañu euh, janvier 2000 janvier 2000 janvier 2000 ñun déplacé nañu à notre niveau déplacé nañu jógee Tivaouane pendant presque un mois boo xamante ni chaque semaine ñu jógee Tivaouane taal oto dem dem dem dem dem dem Tobène lan moo ñu fa lan fa doon yóbbu le préfet de le préfet de de de de mooy mooy euh, yabal le sous-préfet de de de de Mewane euh, le Sié Ndaw pour mu yabal ay gen ànd ak ay gendarme yabal leen pour lii ñu def tey c'est Aly Ngouille Ndiaye kii l'a commandité lii ñu lii ñoon lu def en janvier li amoon en janvier c'est le sous-préfet de Mewane moo jéem jéem mënul Aly Ngouille Ndiaye ñëw à la à sa rescousse ñoon la na la ñëwee à sa rescousse mooy ba mu ñëwee pourquoi man la état l' du côté est du côté des ICS ba mu ñëwee ñu euh, dal dal dalal wax waxtaan euh, à Meewaan ñu toog Meewaan waa waa Tóobén ñëw waa Kër Mëgëy ñëw waa Màkk ñëw waa waa waa euh, maire de Meewaan ñëw Baara Ndiaye maire de Taïba Ndiaye ñëw di ale ale ale ale ale loo ñu toog di waxtaan di waxtaan di waxtaan ba représentant bi nga xamante ni mooy Cheikh Top nekk FPD di seen porte parole euh, yor kàddu waa waa waa waa ba mu jógee jël jël parole ne ko ministre monsieur le ministre kat nii ak nii la yëf fi demee nii ak nii la ñu bëgg dañu ko yow euh, toogal fii xët-xët yi rek la fi dara mu ne ko du xët-xët damaa xam ni lii ñuy wax nii ñun kenn gënuñu ñu ko xam moo tax may wax li may wax mu ni ko bu ñu bëggee jël déglu bu baax li ma lay wax mu ni ko bu ñu bëggee jël Ndiaye moo wax lii moo wax lii ngay waaj a wax bu ñu bëggee jël si mhm. mënu luñ ñu ko teree jël léegi ñi dëkk foofu moom tekki wuñ dara. amutuñ luñ fay amul maanaam ñooñu amuñu luñ fay amuñu luñ luñ fay luñ fay laaj li population yi di laaj c'est des miettes par rapport ak li leen euh, li leen ICS di teg li population yi di laaj du dara. par rapport ak li li li ICS di jëlee ci di jëlee ci suuf di jëlee ci suuf soosu li population yi di laaj noonu lañ fa doon jëlee li population yi di laaj mënul leen dara je vous que ni bu ñu leen ko joxoon tay tamit li population yi di laaj la wax bu ñu leen ko joxoon tay tamit dans quelques mois vous allez entendre qu'ils sont seront dans les mêmes yi nga xamante moom la waa Ndoyeen di dund moom la waa euh, euh, moom la euh, Mbaar Njaay di dund moom la waa Mbaar Diop di dund moom la yeneen population yi nga xamante ni ñoom la ICS jëlee feeñu dëkkoon di di dund boobu di dund boobu léegi lan situation la ñuy dund mooy dañu nangu ñi jël ay 17 millions ñu jël ay 9 millions te loolu sax du li li toobeen laaj de ay 17 millions ak i 9 millions ak ay kër ñu dem tabax tabax ci ay kër ñii jël seen xaalis jox ko seen ay doom ñu dem étranger ñii jël seen xaalis def ko ci ay projet mu daanu ñii jël seen xaalis def ko ci ay oto oto yu paan ñii jël seen xaalis def ko ci kër tabaxee ko ay kër booy dugg pire booy jógee teewaan di dugg pire à côté avant ngay dugg Pire y' a une y' a sax doone sax village la c' comme si un cité cité la cité la parce que ay kër yu rafet ay kër yu yanja fa nekk da nga naan ay kër yu rafet ay kër yu yanja fa nekk. Mhm. waa ñooñu ñooy waa Mbaar Ndiaye ak waa Mbaar Diop bañ leen isa yëkkatee jox leen xaalis bi mu leen jox ak nu takku takku takku. dañoo xam def ni xaalis bi dafa takku takkuwul parce que bañ ca tabaxee kër ay 15 mètres sur ay 15 sur 20 ay 300 mètres carrés yoo xamante ni mënoo cee dugal sa njaboot boo ci dugalee sa njaboot mënoo cee dugal sa sa sa jur ga nga ga nga àndal tu es de sa départir de ñoo ñooñu ñoo ñoo nekk instant bi dund ay ay métit métit yi mhm. mooy ils sont obligés tey góor ñi di dugg pire ak Tiwaawan di di baru pour am lu ñu lekk jigéen ñi di dugg Pire ak Tivaouane di mbindaanu pour am pour am lu ñu yóbbu yóbbu yóbbu seen kër lii la situa lii mooy situation bi nga xamante ni waa Tóobeen teg ci seen bët bañ ko dund moo tax ñu taxaw nii ñu taxaw bañ ni loolu du am loolu dafa amee Cheikh Tidiane Gueye ma fàttali ne moom mooy suñu gan tey ci Good Morning ngir ñu waxtaanee li nga xam ne moom moo ci situation bi nekk foofu ci Tóobeen des na tuuti baadoola moom euh, ci réew mi moom dana dana jafe mu mu mu dund ndax euh, yenn situation yi bu ñu la koy nettali danga naan xanaa loolu xewewul si réew moo xam ne ay sénégalais li ñu laaj du lenn lu dul fu ñu mën a bayee nu ñu mën a dundee ñaanuñu sàccuñu ñu dañu ñëw fekk leen ci seen suuf yàlla def seen suuf am lu ci nekk loo xam ne réew mi yëpp ko soxla euh, c'est vrai que boo bëggee progrès faw ñu am yenn avancement yi waaye léeg léegi dafay laaj ndàmpaay bu ko defee Sénégal xam ne am na ñeneen ñoo xam ne la daloon Ndingler lu ko gën a raw dal na leen abu su fekkee mën nañ xool image yi parce que sur ces images on voit euh, la gendarmerie en train de de de de de de, de def seen liggéey laa koy mën woowee ah. Mhm. Euh, parce que ay ordre la ñu jot. c'est des soldats ñuy ñëw di am jaamaarloo yoo xam ne léeg-léeg dañ koy jaamaarloo ko askan wi kon des fois nga gis ne. Euh, askan wi dañuy ñëw taxaw croiser les bras di xool ba xam fan la wananti di mu jëkki gëtëm euh, force reste à la loi on ne peut da ngay gis sax benn image maa ngi koy gi sànq euh, suuf si ICS bëgg a jël ay suuf ay baykat lañ ñoom li ñuy soxla du lenn lu dul fu ñu mën a bay dundee waaye wàllu wàllu goo jël d'après les informations et c'est ce que à l'image mhm. dañ naan la fii domaine u ICS la léegi nag bras de fer am Euh, ndaw ñi ak ñi dëkk ci dëkk bi ne du fi jaar dañuy jël seeni suuf loolu dafay indi jéye ndax population bi ñoom ci seen bopp bay la ñu yaakaar pour dundee ñoo xam ne amuñu courant te ci Sénégal gii la ñu bokk waruñu leen seetaan ñu leen di néewal doole continuer di ko def gis ngeen yi ngeen di gis yëpp mu ngi am ci village bi euh, gendarmerie nag dégg na fan yi on a vu des images d'ailleurs sur la toile ñëw nañ fa ba jàpp fa lu war a tolloog ñaar fukki ndaw ak ñett Euh, gis nga kon waa Tobène ñu ngi nii ci seen i biiri tool am ñu ñëw di waxtaan ak euh, taskatu xibaar yi wala di waxtaan ak askan wi waaye lan lañ ci mën def lan mooy lu ñu mën a jël comme solution c'est dans ces moments-là que nous avons besoin de tous les Sénégalais parce que bu ñu seetaanee rek euh, ñi am doole lool dinañ jaay doole ñi ko le ba mu leen a faagaagal mbala ñu boom leen te ku ci nekk boo tegee sa place boo tegee sa bopp à la place des villageois de Tobène wala nga xam ne yow ci Sénégal gi nga bokk am na ñu néew doole lool ñoo xam ne ñu am doole lool dañu leen di jéem a bunduxatal ba nangu foqate li ñu am euh, dafay métti c'est quelque chose de vraiment difficile euh, en attendant de voir peut-être en communiqué parce que c'est comme ça qu'ils communiquent avec nous les institutionnels ñoom pour ñoom bu ñu waree wax ak askan wi rek dañuy bind ñaari mots ci benn feuille dal ne selon vu la nangam nangam te nit ñi léeg-léeg dañ leen di laaj loo xam ne c'est des vies qui en dépendent xëy na su ngeen mënee ñëw wax ak nit ñi dina dina baax euh, Cheikh Tidiane euh, des fois dañuy laaj ñun ci suñu réew mi ñu nekk ndax am nañ fi droit wala am nañ fi lu ñu mën a euh, teg suñu loxo ne ñoo ko moom mais à chaque fois dañuy fàttali ne ñun li ñu tekki bariwut hmm. ba ñeneen ñi buñ soxlaa ñun dañuy xaar hmm. ba ñaar fukki doomu aadama yooyu ak ñett ñu jàpp Euh, lan moo waral ñu jàppaleen dañu dañ doon xeex ak policiers yi wala dañoo taxaw ne du ñu dem wala dañu def lu dëppoowul ak yoon lan moo waral ñu jàpp leen les 23 la. ce euh, ce jour muy mercredi bi passé. Mm -hmm. euh, mercredi euh, 29 je crois euh, non c'est en août. Mm -hmm. la mercredi bi passé. Mm -hmm. donc mercredi passé euh, avant mercredi passé dañu envoyé cinq convocations à des gens yoo xamante ni ñu ngi dëkk biir Tobène. parmi lesquels le chef de village de Kithiane le chef de village de Bengen ak le chef de village de Tobène parce que Tobène euh, aussi dafa nekk ci biir mais dafa am ay euh, maanaam euh, ñetti pàcc ñetti pàcc ñetti pàcc xamante ni ñii mhm. ñi ngi ñii Mbengeen ñenn ñi Toob ñenn ñi ñoo sant Toob ñoo waa Toobeen ñett ñooñu ñu convoqué leen ak ñeneen ñaar ñoo xamante ni ci village bi la ñu nekk ak xaali topp ku ñu wax xaali topp Euh, bañ ci convoqué juróom ñooñu le mardi le mercredi lañ leen convoqué à 9h pour ñu ñëw wuyu à 9h pour affaire leur concernant comme on dit qu'on sur les convocations nga nit ñi ñu convoqué leen 9h mercredi mercredi 4h du matin 4h du matin 4h du matin peut-être ñu bari gisuñu leen mais ñi yeewu 5h du matin ñoom nee ñu fa la ñu fekk gendarmerie taxaw. te dañ leen a te dañ leen dafa am ñu ñu ci convoqué woon. ils sont descendus avec plus de 250 gendarmes plus de 250 gendarmes ay takk der. armé wu jusqu'aux dents pour mater cette population la ba ñu wàccee. non mais j'ai pas compris pas compris dañu convoqué juróomi nit 9 heures. ci hmm. mercredi bi. mercredi 4 heures du matin. ñu wàcc ci village gendarme yi ñëw ci village bi ñoom xaaru ñu ñu convoqué dem. c'est c'est-à-dire du convocation bi moom la moo leen moo leen moo leen euh, itteeloon li leen itteel le maire de Taïba Ndiaye wax na ko dans un interview bu mu interview bu mu am à bi fi ministre bi ñëwee li leen loon mooy ñu jël ñi nga xamante ni ñoo fa doon dëgër bopp li ñuy wooye di ñuy wooye dëgër bopp mooy ni lañ leen jël xoqatal leen bu ko defee du ñu génn en attendant ñu mesurer opération la ñu mesurer mesurer tool yi mhm. li may wax nii ki ko dëggal mooy le maire de Taïba Ndiaye Aly Lo mi nga xamante ni fekke woon na waxtaan wi amoon ak la population euh, entre la population et le ministre Aly Ngouille Ndiaye Aly Lo moo ni dans une interview peut-être loolu mën nañ ko génnee moo ni ñi ñu jàpp dañ leen bàyyi dañ leen a jàpp rek pour mën a mesurer c'est-à-dire dañ leen jàpp pour essayer andi ay géomètre am ñu mesurer tool yi nga xamante ni seen borom moom la ñoon bañ ñu mesurer ko parce que loolu noonu euh, détail la ci euh, de waxtaan wi maanaam ñoom bañu ko mesurer dañu bëgg balaa ñuy mesurer ñu wax ñu wa ñu wax leen ñaata lañ leen di fay bu ñu mesurer ba pare lu tax loolu parce que dafa amoon ñu fi jaar toobeen li ñuy wax lépp ci expérience lañ ko wéer expérience lañ ko wér dafa amoon village yoo xam ne ay village yoo xamante ni dañu ni woon nañ bàyyi ñu mesurer ba pare après dañuy waxtaan ñooñu bàyyi ñu mesurer ba pare xam nga ba ñu mesurer ba pare lañ la lan la ñu def mhm. dañu mesurer ba pare xam nañu tool bi ci xool tool bu ci nekk kan moo kan moo ko moom donc bu ñu mesurer ba pare xam nañu li ñu soxla ñaata la xam nga qu'est-ce qu'ils vont li ñu leen doon wax ngay bañ moom lañ dee bind bindal bindal ci chèque xam nañ ku moom tool bi ñu bind ci borom euh, euh, borom borom tool bi te du sax ku moom tool bi de tool bi dafa am responsable maanaam ki mag ci famille bi la ñuy jël turam mais tool yi ngeen di gis nii yëpp du kenn nit moom moo ko mën a moom kër moo ko moom kër gi boo duggee ci village yi kër gi ay apartement ngay ngay ngay fekk appartement bu ci nekk ponkal moom jëmm moo fa nekk ak njabootam ci tool bi la ci tool bi la bokk ay tool yoo xamante ni des fois du mat sax un un hectare loolu lañ leen di loolu lañ leen loolu lañ leen def bind ci chèque bi sa tur bind ci chèque bi montant ba nga ko banque bu nekk Thiès wala banque bu nekk Tivaouane ñëw ne la diw nga am nga am nga waa kër Maguette ñuy wax am na ci ñoo xamante ni dee moo leen gënal jël chèque yi ay chèques yoo xamante ni bind nañ ko depuis depuis depuis lors kenn xamul kañ la kañ kañ kañ la suuf yi ñuy wax ni jënd nañ ko suufi waa Kër Mëgëy jël nañ ko ba commencé ko exploité waa Kër Mëgëy nee nañu dee moo leen bëgg moo leen moo leen jaral jël jël chèque yooyu boo jëlee chèque yooyu sa mbokk sa waa kër gi tas boo jëlee chèque yooyu kenn mënu ci am lu lu lu ko lu ko doy ci ay kër yoo xamante ni ñett wala ñeent wala juróomi nit ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo bokk tool yi ils ont préféré laisser ces chèques là dans dans dans les banques ba léegi nii may may may may may may may wax yow beneen affaire mooy. li tax ñuy li tax ñuy bañ toujours ñu wér ko ci wér ko ci euh, wér ko ci expérience mooy ñu ay mbokk yoo xamante ni seen ay seen ay seen ay seen ay seen ay ay ay sëg ay ay cimetière dañuy jël tonni yóbbu bul xam fan lañ ko bul xam fan fan lañ ko jëlee mais yow imagine nga yow mii yaa ngi wax léegi yaa yaa ngi wax léegi problème euh, cimetière euh, ñi nekk cimetière wetu cimetière Pikine cimetière Pikine boobu di problème boo xamante ni waa FRAPP aussi ñu ngi ci taxaw ñu ngi ci taxaw boobu ba léegi déplacer ay cimetière yombul xam ngeen xam ngeen loolu nekk waa Pikine mm-hmm. donc mu nekk ay soubassement yoo xamante ni tey fokk ñu wax ko lii taxoon ma ñëwaat ci sa question mooy jàpp 23 euh, yooyu 23 yooyu ñu jàpp ba ñu ñëwee fajar ba ñu ñëwee fajar boobu noonu lan lañ def ku dugg ku génn paa yi génnoon di julli ñu ne boo leen génnee jàkka ji boo leen duggaatee seen kër bu leen génnaat ñu ne ah ñu ne déet le mercredi toobeen kenn ndëkkiwul kenn añul kenn reerul parce que balaa ngay ndëkki da ngay génn nit ñi de euh, femme yi dañuy génn ci ginnaaw. dem marché de balaa ñu dem marché dañuy wuti xam dañuy wut lu ñu xamee taal. Mm. te loolu mi ngi ci ginnaaw mi ngi taxaw taxani xam nga li may wax. Mm-hmm. mi ngi ci ginnaaw mi ngi ci ginnaaw mi ngi ci ginnaaw kër yi mënuñu koo def. donc ndekkiwuñu añ foog nga génn dem dem dem dem Pire wala nga dem Tivaouane wala nga dem Meewaan wala nga dem feneen dem dem dem marché wala nga dem ci marché bi kenn mënu faa génn kenn mënu faa génn paa yi ñu leen dugg leen seen kër yi di toog duggal si Créto yamuñu foofu noonu ils avaient une liste dañu amoon seen liste bu ñu def ñi ñoo jàpp ñëpp xam nañ leen ñeneen ñi ñu jàpp peut-être xamuñu leen mooy ñi nga xamante ni xalaat nañu ni bu ñu leen fa bàyyee mën nañu indi mën nañu indi euh, indi force. mën nañu mën nañu résister mën nañu mën nañu résister les plus résistants ñu dem fekk leen seen kër yi jàpp leen Cheikh Top mi ñuy wax. Euh, Aïda Top euh, euh, Yaay Fall bu fa nekk moo ko yee ci néegam ne ko Cheikh kat man ba ma yeewu ba léegi gendarme yaa ngi ci kii mu ne ko ah mu ne ko man de dañ maa wowoon mais 9h lañ ma lañ ma convoqué. ba avant muy àggal Cheikh Top ba muy commencé di wootee di woote di woote ay ay ay nit man 7h 7h 3 minutes la ma la la ma nit woone ma gendarme yaa ngi gendarme yaa ngi ci gendarme yaa ngi ci ci dëkk bi Cheikh Top biir këram lañ ko fekk am ñoo xamante ni seen biir. salle de bain lañ leen fekk ñuy sangu ñu ñu ñu jël leen yóbbu donc ñi fa jàpp yëpp noonu la ñu leen jàppee yamuñu si jàpp ñu si village bi dañu leen a jàpp ba pare ñi leen doon di leen doon di leen di leen di leen yóbbu Mboro fa leen fa leen tëj di leen méttital ci yoon bi nañ ko laaj ñi nga xamante ñoom lañ jàppoon di leen dóor ay casque ba keroog ñu ba keroog ñuy àgg leneen aussi daf ci am Euh, Cheikh Fall mi nga xamante ni FPD Cheikh Fall boo dëkkul sax Tobène ndeysaan ci FPD la bokk FPD di association di kon kuréel goo xamante ni mooy défendre intérêt yi nga xamante ni moom la moom la moom la population yi am Cheikh Fall censeur au lycée de Diaobé Cheikh Fall jàppam lu tax mu gën ñoo metti mooy fa mu nekk il a fait que relater les informations à travers la presse notamment à travers organes de presse yi nga xamante ñoom ñoo ko woo pour s'enquérir de la situation mais est-ce nekkoo ci risque ni ñun ñëpp mën nañu nekk ci risque ñun Pape ñun ñun on on est on est on est prêt à tout gis nga Pape dafa loolu sax jarul jarul jarul ñu si dugg ñun suñu suñu suñu suñu suñu suñu euh, suñu suñu personne ça importe peu le mooy nit ñi xam comme ni comme ni nga jëlee initiative woo ma tey ñu xamal population bi ñun suñu initiative mooy loolu ñun si lii ñuy wax ni ñun rek munuñu si dara cest à dafa laaj euh, dafa laaj euh, comment diir Euh, que nit ñi xam ce qui se passe comme ils l'ont fait dans d'autres cas pour que nit ñi mën ci wax au moins pour que situation euh, ab euh, solution am. Mm donc ñun li ñuy wax mooy solution na am na solution am. Mm -hmm. Cheikh Fall tey gis ngeen situation bi am avec la Covid là dans pour pour les écoles mu jógee Tobène dem ba Diaobé sept cent et quelques kilomètres pour jàngale il est censeur là-bas donc il est responsable là-bas tey le lycée euh, de Diaobé. Euh, woote leen foofu ngeen ngeen ngeen y a un service informatique y a un domaine informatique boo xamante ni Cheikh Fall ci boppam moo ko moo ko faroon moo ko faroon doxal bu ñu ko jàppee nan la bu jëm ci lycée bu jógee ci ay ay épreuve euh, philosophique ci épreuve euh, baccalauréat euh, lycée yi xam nañ ni muy demee lycée yi ay ni dañuy dajale fii waa ñi nekk ci secondaire bi dajale fii ñi nekk ci nekk ci lycée bi donc qui vont vers des vers vers vers le baccalauréat lañuy nan lay bu ñu demee le 21 bi di ñëw ñu jugé leen jàpp leen tëj leen bàyyi leen ci kaso bi bàyyi fi Cheikh Fall ci kaso bi ñooñu nan lañ nan lañ ko nan lañ ko nan lañ continuer di woote aussi di woo aussi les les syndicats d' enseignants je mhm. loolu war ci mën a les syndicats d' enseignants et des professeurs loolu c' problème boo xamante ñoom ñëpp war nañ ci àddu Aliou Badara Mboup notre coordonnateur de aar la ñu bokk au de Tivaouane il en a fait un poste def nañ ci poste di woo bépp jàngalekat pour que ñu àdd ci situation boobu noonu nga xamante alarmant il a un jeune du nom de Mor qui dit Pape Sidi je confirme je suis de Tobène euh, de solidarité notre mission à nous c'était d'exposer le problème pour sénégalais yi xam en réalité lan mooy euh, euh, problème bi am Tóobén ba buñ koy song ñu xam fan lañ koy jaare qui est responsable qui ne l'est pas waaye finalement li mujj régler problème mu Ndingler mooy waxtaan ñu ngi ñaan euh, autorités yu Tiwaawoon yi te Tiwaawoon boo ko déggee ak foo mënti nekk ci àdduna bi yàlla def na ni Seydi Hadj Malick gaaya la jógee ñëw Tiwaawoon doon fa jàngale alxuraan ba tey boo déggee Tiwaawoon rek Seydi Hadji Malick moo ko fa yóbbu te njabootu Seydi Hadji Malick ak ki ko fi teewal di magu kër gi di sëriñ Babacar Sy mu sëriñ Mansour xalif général des tijan yàlla dimbale ne nit ñi xam nañ ne ku ñeme dëgg la ku averti la ku conscient la si liy am si société bi de par ses actes et de par son travail très clair voyant moom ñu ngi koy ñaan maam ñu ngi lay ñaan lillahi wa rasulillahi nga dox tànk jàmm ci diggante ñi nekk toobeen village boobu nga xam ne ñeenti junni doomu aadama ñoo fi yeewoo te mbay rek la ñu xam te ñëpp ñi bokk ci njaboot Seydi Hadji Malick xam nañ ne bay ak liggéey rek moom moo nekk seen moo nekk seen ay source de revenu nit bu bokkee ci njaboot gi ñu ngi koy ñaan nga woo ñi bokkee ci état bi woo ñi bokkee ci askan wi ngeen xool benn tera d'entente boo xam ne ñu ngi koy trouver parce que je pense que loolu rek moo mën a nekk solution bi parce que waa Tóobeen ay villageois la ñoo xam ne ngaska la ñu xam Ileer Gopp ak yu ni mel mënuñoo xeex ñi nga xam ne dañoo jàng formation ba xam nu ñuy xeexee ay gendarme te ñaare ñi nekk ci village dañuy xaw am ragal bu ñuy ragal ñooñu di nekk ci euh, kër euh, yoon takk der yi ndax même bu ñu leen intimider wala ñu oppressé leen du ñu am fu ñu ko jooyee ndax média dafay xaw a sore mu accès si ñoom euh, Cheikh Tidiane maa ngi lay sant bu baax di la gërëm maintenant euh, lan lañ leen mun a jàppale mise à part en parler sur la toile mis à part euh, être des haut-parleurs nous aussi nous allons essayer après sur la toile ku ci nekk ni mu mënee ñu defee ko suñu yëfu bopp ba waa Tobène delluwaat ci seen ay suuf wala ñu ndàmp leen ndàmpaay gu gu méngoog li ñu soxla lan lañ mun a defaat mis à part ça je crois que ni nga ko defee nii bu ko ñu bari defee noonu euh, solution mën na mën na am euh, solution mën na am aussi euh, bu fekkee par exemple ñi nga xamante ni xalaat nañu mën nañ ci àddu mën nañ ci wax mën nañ ci dox tànku jàmm ñu déplacé wu au niveau de Tobène bu ko defee ñu jànkonte ak ñi nga xamante ni ñoo dund situation bi ñu ne fi nekk di wax. parce que ñun li ñuy def c' est juste relayer des informations yoo xamante ni du peut être ak ay faits yoo xamante ni dund nañ ko mais ay informations yoo xam ne aussi ñu ngi ko jëlee ci ñi nga xamante ni ñoo seqoon waxtaan yi ñuy wax. Euh, leneen li mooy euh, di woote di ci woo ñëpp ñi nga xamante ni ils sont épris de justice ñëpp ñi nga xamante ni injustice daf leen di euh, daf leen daf leen di daf leen di sonal te mënuñu koo noppi. Mm-hmm. ñun mënuñu koo noppi mënuñu ko noppi mais aussi xam nañu ni li liñ ci mën a dox wala liñ ci mën a wax aussi dafay rek lu tolloo ak suñu doole tolloo ak suñu doole yam ku jaaxle ku woote wàllu nag fa nga xalaat. wal fa nga kuy woote euh, ku la jàppale fa nga xalaat wàllu rek ngay jëmale sa gémmiñ mm-hmm. fi ñu jëmale suñu gémmiñ mooy euh, suñu wasila yi maanaam euh, waa kër Seydi Hadji Malick ñi nga xamante ni seen ay taalibe ñoom ñoo fa nekk seen ay taalibe aussi ñoo nekk ci si question bi di ci wax boobu ba léegi ñun jox nañ ci dox nañ ci ay ay jéego pour au moins res rencontrer quelque membre de la famille religieuse notamment la famille du xalif Seydi Aboubacar c'était pas facile Serigne Mbaye Sy Abdou njool fuuta sama xarit la su ma nuppee fii dinaa ko woo parce moom ne maam loo ci mën rek def ko ci incha dinaa woo Serigne baax na te am na lu waa Ndengeleer am mooy góor gi Ablaye John li tax sénégalais yëpp naw ko mooy dañ koo jox ay millions yoon yu bari jéem koo ger jéem koo corrompre a n reprise et il a été digne léegi nag village bu am mille personnes doo mën a contrôler ñëpp léeg-léeg mu am ñoo xam ne seen intérêt personnel la ñuy jiital bay bëgg a fàqat général ñu ngi ñaan waa Toobeen ñi dëkk Toobeen ngir yàlla war a suuli am na ñuy xeex xeexaluñ seen bopp dañuy xeex ngir ñëpp tóobeen am jàmm mu bañ a am ñuy rocceeku rek di def ci suuf ay comité ak affaire yooyu bëgg cee lal politique parce que dañ leen a ger wala dañ leen jox xaalis bu boobaa nit ñi dinañ leen mën a jàppale waaye bu fekkee da ngay xeexal waa tóobeen te waa am ñu dëkk tóobeen wane ne tóobeen la ñu dëkk ñoom it di xeex ñii xeexal tóobeen dafay indi problème loolu dafa am bu fekkee am na it ñu ngi leen di ñaan ngeen xoolaat bu baax Cheikh Tidiane mu ngi xeexal waa Tobène bu waa Tobène jugee di xeex Cheikh Tidiane dafay jafe ñeneen ñu mel ne Cheikh Tidiane te nekk ci réew mi bugguñ injustice euh, jàppale leen ci xeex bi donc bu ngeen bëggee seen intérêt yéen waa Tobène nit ñi jël ko def ko au devant de la scène il va falloir que yéen waa Tobène bu ngeen bëggoon a xeex ak ñii xeexal Tobène sax ngeen teg ko ci suuf euh, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm reste avec nous on va rire bien sûr on va rire avec Bathily Brizy <laughs> lui c'est le plus grand euh, extraordinaire il parvient à nous faire lire à nous faire rire à travers les lignes il sait faire bouger les lignes Bathily Brizy il est extraordinaire Bathily Brizy sa tool fan la ne <laughs> yow est-ce que mën ngaa bay sax mën ngaa naweti non non non mais bu rek booy Dakar ba bay non man booy Dakar yow bay ah? bay Dakar laa Pikine laa juddoo musoo ay dem ay xel comme sax pour découvrir sax affaire yooyu. waaye déggal mu naan technopole gii ñuy bayee fleur nga naan moom def ko moom xam nga xam nga ay ma lay wax mbay muy muy duy sax nga may xam nga ni caaxaan nga. <laughs> non musuma bay nag moom ah, non mais a bay. pousse machine pousse machine tuuti non pousse machine tuuti wala nga wommat sax. wala nga <laughs> ma yàlla ma am tool rek. non du ma la ñaanal yàlla nga am tool dañ lay yóbbu utal la Euh, kii nii njaatige nga nekk surga. nga weer wu dee mun nañ la trois mois yi bu jeexee mën nga cee génn ak trois cent mille de. am na xaalis mbay am na Sénégal moom amul xaalis booy imaginer trois mois trois cent mille moom ngay récolter. Ah, mais bon. Fall on est toujours réew boo ko bëggee développer. da ngay développer la tax réew ma mën a développer mooy mbay ma. waaye mhm. ba tey ñun ñu ngi ci méthode primitive da ngay gis Saalum ngay gis ku yor ngoos-ngoos day sëgg. takk xaaral ma jug démontrer la may ma nii lay def billahi Saalum. dangay gis jigéen mu nekk ci toolam war a ji day takk fii genn ngafaka wala ngisa wala nafa da koy takk def ci gerte mbaa dugg léegi day sëgg gas siggi dugal suul ak tànkam jàll noonu la koy jàppee tool bi ba mu jeex oh, léegi bu dikkaatee di bay noonu la yore goppam wala illeer wala mu yor ngoosi ngoos di dindi ñax yi nga xam ne ñooy sax aux alentours de li mu ji mm-hmm. pour bañ loolu euh, am problème pour te dire que ñun ay méthodes yu primitives la ñuy utiliser ba tey yoo xam ne même euh, suñuy maam yi buñ ñu dekki waatoon dañ naan tool bi maa ko moomoon mun naa continuer ci bay te loolu àdduna bi léegi évolué na dangay gis tubaab bi dañuy yor benn deux hectare même pas dix minutes ñu def ci li ci war a def yëpp ji ko défricher ko bàyyi arrosage automatique bi dem seen yoon moo tax lu ñu lekk ñoom ñoo ñu koy jaay malheureusement bàcc <laughs> dinaa la yóbbu nga bay waaw incha allah xam lan moo tax ñu naan ba si góor a koy bay incha allah xam nga lu tax ñuy wax loolu découvrir expérience bi non il faut le faire mm-hmm. c'est très très extraordinaire alors bàcc aujourd'hui tu as posté quoi pas aujourd'hui mais l'autre jour tu as posté quoi et qu'est-ce que ça a donné sur la toile bon li ma posté moom ma xam naa de c'est juste que comme li ma la wax rek yow moom xam nga dund lépp man dund naa lépp yow maa yow ñoo xaw a. bàyyi li ma wax dund nga ko dund. non mosuma ko dund. mais <laughs> noo ba xam Kaja. Kaja fii laa ko xamee deux may ma sama jàmm parce que yàlla deux heures laa si plateau bi fii ma toog di présenter émission mu toog a côté ma naan booy bi mool na ba doxaan ko ba <laughs> wallaay. <laughs> waa régie bu fekkee poste bi disponible na dañu ñëw ñu xool. abu ñu dem ba xam liñ may jiñ dëgg la. lan mooy sa pire sacrifice bi nga def par amour. <laughs> avant tout avant ñu ñëw ci commentaire yi ma bàyyi Pape moom mu wax expérience am ba pare man ma wax sama expérience bi ma bi ma bi ma dund. sama pire sacrifice. Mhm. parce que ñun fii Sénégal du ñu sacrifier parce que du ay formation aussi. <laughs> non mais attends sacrifice. boo xam ne bëgg nga ko def mu marqué la. par amour. Mhm. ndeysaan maay yi bu mu amuloon karo. Mhm. mosoon naa dem marché géej bu Kaolack doon jaay mbuus. Mhm. marché géej da ngay jënd mbuus bi quatre cent euh, kii nii euh, six cent. Mhm. paquetu mbuus ñaar dërëm mhm. sama gel di anniversaire ana ana lu tuddoon mu ngi dëkkoon ndar bu ndaw. <laughs> léegi ma jaay mbuus yi boo ko jaayee ba pare da ngay am quatre cent bénéfice. mais jaay mbuus kese seddu la may xaalis en tant que jeune il fallait que man aussi bu amee benn maire bu ndugg si ma yenul ko boo ko yenulee fi mu ye euh, nduggam. ci marché bi ba fi muy jëlee taxi wala fi muy jëlee car mu may la cent franc wala fukki dërëm. Mhm. ma dajale journée bi yëpp ba am xaalis dem yóbbu ñu wéev ma wéev affaire boobu noonu gaay doon def wéev <laughs> mooy ma jël xaalis bi yëpp dem jënd si benn jaaro mbaaru mbaaru mbaaru mbaaru urus Kaolack. waaw jënd dem fay ñu ambaleel ma ko. Uh-huh. ma jël xaalis bi ma liggéey yëpp. def ko ci kondaane ko def ko ci dem si jour anniversaire bi fekk sama gel am beneen fa. <laughs> jur boobu noonu laa téye sama cadeau di dem ba sama buntu kër may jooy jooy beeg non c'était un euh, bon lu ndaw la pour yow mais sacrifié wu naa non loolu sacrifice la non loolu moom sacrifice la <laughs> loolu moom kenn kenn du la ko kenn ko kenn du la ko xeebal sacrifice la de damaa yendoo jaay mbuus yendoo yen <laughs> yendoo yenu booy <laughs> sacrifice la loolu sacrifice la bon man moom man moom non man moom bi ma def moom mooy euh, weeru koor la xam nga benn weeru koor ma gis gars yi xam nga rek comme yi ñuy def di jaay jonge di jox seen yaayu gel yi ay sukkaru koor man boobu chômeur la aw ma dara ma xool yor ay dàll adidas yu ma ja yu ma yu ma mosoon yónnee moom laa mujjee jël dem kolobaan dàll yi mi ngi jar ay trente mille ans ah, mais maa ngi dugg Colobane bu ko jaay xam rek Colobane boo bëggee jaay dàll gars yi dañ rey waaw waa ji fay ma 6000 te boobu yoruma paasu ñibbi te dugg naa Colobane ba pare mu ne garaawul baa ma dóor daal yi rek ma dóoree daal yi. a Colobane aussi yéen ñu ay yéen ñu bon xol ngeen. Pape Sidi ma dóor daal yi paas si taw yi ñëw jël 5000 jox ko booy bi fekk 5000 xam nga rek jamono boobu dara la. balaa korité ñu maye booy bi. non. balaa korité ñàkk naa sama Adidas ñàkk sama gerte. c'est-à-dire par amour sacrifice par amour. <laughs> waa kon baan aussi xool leen seen bopp yéen da ngeen a bon xol yéen. non mais da ngay gis kuy jaalu jar 100000 boo dikkee Colobane li ñu lay njëkk a def mooy. billaay 6000 la ma waaj 6000 la ma waaj fay. <laughs> Cheikh Tidiane loo mos bon bi nga nee du ñu franc-maçon ça m'a fait penser à une chose boo xamante ni bon c'était dans le cadre parce que. Mhm. sacrifice la par amour. Mhm. donc euh, bon mënuma cee sori nag. parce que waaw sori ci waaye nga naan ma ay affaire mbëggeel yooyu amul révolutionnaire dimbale ñu la wax affaire mbëggeel amul affaire révolutionnaire Cheikh Tidiane. ok ok am dina am koo xamante ne dina ma ko baal. Uh-huh. mais xam nga yàgg na nag yàgg na de. Uh-huh. nañ ko wax loo yàgg na. yàgg na xam nga góob géré. góob géré mooy bi ñu doon def euh, albert bi. waaw xam naa góob géré foofu laa yem <laughs> waaw mais commentaire yi bu fekkee disponible na ñu xool sacrifice <laughs> ban yéen ngeen mën sa def. grand grand bi grand ko bi dafa junj waaw. mu ne. Euh, Sidaati Fall nee na moom sàcc na seenu xaalisu petite sœur am jox ko gelam après ñuy wër seen bi mu xëy suba rek gel bi takk chaîne bi ñëw seen kër seeti ko. non. <laughs> nee na jour boobu gàcce bi mu am mënu ko mënu ko compter parce que kenn xamul woon kan moo sàcc chaîne bi ndekete moom moo ko sàcc jox ko gel bi. gel bi xëy takk ko dugg ak moom ci biir kër gi. <laughs> <laughs> yéen ñi dund ay sacrifice xoolal am na kenn ku ku tudd Pape Mor Diagne nee na arrêté mes études pour chercher de l'argent bëgg takk benn xale <laughs> bañ mu raw ma finalement je l'ai perdu <laughs> tu as perdu les études et tu as perdu la fille. malheureusement non malheureusement noonu lay demee ñu ñëw ci beneen bi Mohamed kii moom mu wax. ki moom nee na moom euh, daawul woon dem soirée parce que amul liberté léegi un jour soirée parce que mu tëb mur fexe ba yóbbaale gel bi nee na ñibbisi di tëb. pour ubbil gel bunt bi ni mu tëbee rek yam ci papay gel bi papay gel bi yuuxoo ko sàcc yi nee moom sacrifice boobu la dund mais nee na jour boobu dootu ko fàtte moom tamit parce que sàcc yi lañ koy yuuxoo fekk da doon tëb pour ubbil gel bi oh, gel yi suñu dalee ñoom ñëpp dañuy <laughs> <laughs> ñu ñëw ci beneen bi ñëw ci euh, beneen bi Bousso moom dafa sàcc vingt mille mais sàcc yi tamit bari nañ ci ko mais looy sàcc looy sàcc. ku ci nekk di sàcc quoi. Sénégalais moo tax mu sàcc. waaw non looy sàcc. waaw nee dafa sàcc vingt mille yaayam xam nga jëndal ko yére mu dem màggal Touba mu ñëw sol ko ànd ak beneen gel mu jàpp ko ci jumaa ji non. nee na mu ko jëndalee yére moom dafa ko fekk mu ànd ak beneen gel te moo ko jëndal yére bi léegi nee na mu dajeeg moom ci jumaa ji ak beneen gel bi quoi. ci jumaa ji la eh jumaa jumaa doxaan ba yegg si jumaa ji nag copain teggil sa tànk quoi parce que jumaa ji dafa am sàppe ñi. am sàppe jigéen ñi non noonu fee pas ça toi aussi. non am na gars yoo xam ne dañuy dem non mais booy doxaan ba yegg ci jumaa nag nga def nga dindi bras dessus bras dessous xanaa bàyyi faal yi nekkuñ fa woon. non ton histoire là reste à kii de dinaa la xoolaat <laughs> kii moom loolu wa. kii sama oto papa dafa sàcc oto papa moom tamit yóbbu yaayam Louga si benn xew di jaay jonge si yoonu ñibbisi bi la ko police jàpp teg si trois mois ñu takk gel bi nee yaay gel bi la yóbbu woon dafa sàcc oto papaam yaay gel bi nee na policiers ko ñu teg si trois mois ñu tëj ñu takk gel bi <laughs> moom tamit perte na ba pare sax ak jàpp bi ñu ko jàpp. <laughs> ak lu leen ci la man li ma jaaxal mooy ñu sacrifié wu ñëpp dañuy perte. la ilaha da ngay mujjee perte quoi xam nga kon. jaaw yaa Cheikhul Ibrahima Baba tax sama genre amatuñu confiance. bàcc kii mu ne. kii nee na wàcc école heure añ jaar seen kër ndekete yoo yaayam suppu kànja la togg te man duma lekk añ duma lekk suppu kànja nee na yaayam di ko daggal jaxatu bi muy souffrir di ko lekk. <laughs> vrai moom du lekk suppu kànja bare nee na ñu koy daggal jaxatu bi di ko ci dolli nee na muy. souffrir da ngeen tax lu leen leen dal da ngeen nangu ñu leen di iri yéen tam. Euh, Papis euh, di recteur. Papis nee bu ñu daan jàngi moom bay wàcc suñu buntu kër lay lay romb. nee na moom xam nga musul jàpp euh, da daan toog ba une heure jot mais da koy xaar quoi ci buntu kër gi moom noonu rek muy romb bu rombee mu dem moom nee na loolu la wu quoi. Mm. day toog ci buntu kër gi. du sax nee na gel bi du ko sax nuy mais moom nay romb rek mu koy xool. Ah, mais kon du gel mais <laughs> mais nopp bu mu nopp gel bi. moo <laughs> tax ci buntu bi lay waaw <laughs> moom xam naa comprendre le concept bi quoi mais pas comme ñuy sacrifier xam nga def dara pour seen gel après perte wala yooyu noonu quoi. Mm. ki nee suñu facture courant laa jël xaalis bi jox ko ko. mu duggee ko concert Sidi Diop ma toog ci porte bi di ko xaar 23h ba 3h du matin accompagné ko. <laughs> fay fay <laughs> kii xam nga nu mu def gelam la jël xaalisu facture baayam ak ndeyam facture courant bi mu jël ko jox ko gel bi gel bi dem soirée Sidi Diop waa ji toog ci buntu bi di ko xaar ba 3 heures du matin ba bu doon sa doom moom kokki la jëm directement. kii ku jëlee rey la. <laughs> yow moom li du par amir par reewaande la yow li nga def nii par reewaande la. ñu dem xoolaat beneen wala jeex na. Euh, ah abu mayaat ñu beneen waaye yi neex na trop c'est très bon. bu fekkee des na beneen rek bu fekkee jeex na aussi bon sacrifice yi du jeex parce que. commentaire yi jeex na jeex na nee nañ ma jeex na. commentaire euh, boo xoolee def na ay. huit cent et quelques commentaires ah sur sur sur Galsen Fun nga dem euh, Instagram aussi y' a deux cent cinquante commentaires mënoo njël yëpp da ngay xool yi nga xam ne ñoo si dàq. mais yow da leen di wax ne leen après euh, ces commentaires seront vont passer dans le good morning. mais day day ko wax comme ça ñoom ñu xam ne li ñuy wax ni ça peut passer à la télé parce que tem nga jàllale fi nit commentaire mu ne waaw waxoo ma <laughs> waaye dañ benn benn benn gain boo xam ne xamul dara fu mu gisee ñun ñuy filmer rek day ñëw taxaw si suñu kanam caméra. bàyyi ba ñu génne ko télé mu moom droit à l'image <laughs> yow ñun yow yow caméra bi mu ubbee ko yow yaa nga dugg si saa bi après ngay wax droit alimentaire mu ne nañ ko fay moom ma jox ko 2000 ma ne ko fay naa la de. boo xaalis la doon <laughs> waa jooju daf may reetaan loo non non mais c'est vrai dañu waaji fu ñu dem di tourner waa ji day ñëw rek sës ma xam nga man fu ma taxaw caméra bi daf may. waaw waa ji daf may sës. sës ma sës émission bi jàll man fàtte naa sax ne émission bi jàll na waa ji li jënd sama numéro boobu ma ne ma waaw j'ai un huissier de justice constaté naa ne jàllale sama image te loolu amu amu ma ne ko waa la woon mu ne ma droit à l'image <laughs> ma ne ko dinaa la may 2000 francs te yow xam nga caméra bi mooy yow problème bi mooy yow yaa doon topp suñ caméra nga ay droit ay droit bàyyi leen ni ngeen a def mais en tout cas c'était un marquer une pause parce qu'il y a euh, Malika qui vient tout de suite avec ses invités. tey on va parler de Djembe mais balaa ngay balaa ngay marquer pause bàyyi ma waxaat sama gars yi parce que tey am na. Noreen Choose ah. moo ma jox dàll yi ma sol. Noreen Choose mi ngi sur Instagram aussi xam nga mën nañu ko flow foofu noonu. ay dàll yu. Noreen Choose moom defe naa la moom dàllam yi muy joxe nice na trop moo ma jox Choose Choose ah, aare yi ah. nice na trop VIP shop Pikine ah, moo ma jox chemise bi ak tubéy bi moo ma solal. donc faaw remercier leen sama gars remercier naa la remercier naa la yow itamit mm-hmm. reste comme tu es ne change de rien tu es bien comme ça Cheikh Tidiane euh, tout le personnel euh, de la 2STV di remercier euh, gars yi nga xamante ñoo nekk ci suuf di remercier euh, Bathie di la aussi yow tamit di remercier aussi tous le tous les camarades au niveau niveau du des collectifs que ñu bokk ñoo doy na di remercier aussi notre coordonnateur au niveau de au niveau départemental muy Alioune Badara Mboup di nga xamante ni ñoo nekk Tivaouane di ñëpp ñi nga xamante ni waa population Tobène ni ñoo nekk di résister boobu ba léegi Pape Sidi je tenais vraiment à ce que effort lii du sax information à ce que ñu xam ni rek ICS tey day jël te du joxe ICS tey mën nañu pour ne pas trop dire day rey ICS dafay rey ICS dafay rey ICS du fay ICS Pape Pape Sidi ICS du benn redevance mu koy fay au niveau du Sénégal. ICS du tax ICS du taxe douanier ICS du impôt. ICS du redevance gestu dara loo xamante ni dafay génn ci gafakaam di def ci gafaga gafaga Sénégal ah. comment dans cette situation la ñu mën par exemple jël ay suuf yoo xamante ni ay nit dañu koy dundee yaakaar ci yaakaar ci seen njaboot yaakaar ci ñu mën ko jox ñoo xam ñu mën war ko jox ñoo xamante ni dañ koy dañ koy tibb di yóbbu te duñ ci ak te duñ ci ci dinañ ci toppaat euh, teg ci loxo teg ci baaraam incha allah incha allah euh, ndax euh, dañu am chronique boo xam ne tey moom dafa nar a bëri sabar tafa boo mënee indiwaat micro boobu noonu taxawoon nga indiwaat ko lii nag livre yi ñu fi waroon a maye bi bi ñu paree émission euh, kon euh, livre baa ngi nii euh, ñi nga xam ne dañ leen si mën si seen ay livre mooy livre mère Fatou Sow donc le livre est là disponible avec moi on va marquer une petite pause histoire de recevoir dans quelques instants Malika et les Djembé Man aujourd'hui on va parler de djembé pour votre plaisir dans la deuxième partie on va danser on va rigoler on va sauter <laughs> Dans la première partie, notre œuvre de fiction, le roman euh, qui a pour titre Kalidou, les tribulations d'un jeune Foutanké, écrit par Atoman euh, vous remarquerez tout au long du parcours, euh, euh, dans sa tête, il était déjà à Dakar. Donc le mauvais état de la chaussée, il n'en était pas affecté du tout. Donc quand il débarque à Dakar, les seuls métiers qui peuvent s'offrir à un garçon qui débarque sans avoir duré à l'école, c'est des petits métiers. Notre texte choisi, Fatimata Diallo, viendra nous faire une note de lecture sur le roman Les eaux noires du professeur Abdul Khan. Et là, on a l'Afrique en plus. Bien. Et on a les mystères de l'Afrique en plus. On a un côté, l'Afrique c'est le continent de toutes les misères. Et on sait que la misère, elle inspire. Dans la dernière partie, Expression libre, nous allons voir la place et le rôle du conte en Afrique avec les contes au clair de lune, que recueil que vient de publier Biti Kébé. Le conte appartient au patrimoine oui. culturel, appartient à tout le monde. Euh, L'essentiel, c'est de savoir, d'avoir la, la, le talent, euh, d'avoir du talent. Le conteur doit être un comédien, doit être un chanteur, un danseur, quelqu'un qui doit être capable de captiver son, euh, nouveau sur la 2STV. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Matin Bonheur. Matin Bonheur, votre émission matinale qui vous donne désormais de bonnes raisons de vous réveiller de bonheur. Vous allez être informé mais aussi diverti Soyez les premiers informés avec les flashs d'infos. Nous allons euh, démarrer par l'actualité en bref. La revue des titres qui vous seront livrés dès 7h du matin. Des invités seront sur place pour discuter de sujets d'actualité. Les biens du domaine public maritime sont affectés. droit wu nit ñi da bokk mooy la liberté d'opinion. c'est juste parce qu'ils disent la vérité qu'ils sont en prison. Et la maison de la presse dafa bokk ci liggéeyam formation. dañuy xeex ay antivaleurs. il faut qu'on réécrive d'autres pages ñëpp ci réew mi jànguñu. réew jàng ak jàngale moo ko yore. secteur éducation dafa sérieux. À cela s'ajoute le clip du jour. Parole aux internautes. daal euh, ay avis et commentaires. Une dose de rétrospective au petit matin pour vous rappeler les événements marquants. Vous aurez votre rétro comme tous les jours. Debout pour le travail et pour l'éthique. Matin Bonheur, le rendez-vous matinal présenté par Astudion. du lundi au vendredi à partir de 7h jusqu'à 8h30 sur la 2 TV. waa Sénégal nee naa ci seen biir te duma tooyal kenn nee naa leen taranga tam xarit la tàmmoon ngeen ko miin ngeen ko mais ak neneen nunu ko daan defee man maa koy présenté mais duma ci wéet ku ma ciy àndal 2STV te bëgg naa ci ànd ak bépp annonceur nag képp ku bëgg rek ñu fësal sa njaay nee naa leen 12 numéro rek kenn ku nekk dana la seeti sa kër yaa xam politicien nga wala ngay cadre boo mun a doon rek ci milieu bi ñu ràññee a woote yow mi yor sa meew mu ngi ci biir bouillon yi nag rawatina bouillon yi bouillon bu ne xam nga ni sans bouillon moom doo lekk cere ji muy neex su ko defee soo wootee ci numéro commercial 2STV yi ñu daal lay accepté nga ñëw ma fësal sa njaay ànd ceeg sama ndaanaan ñu togg cere ji ba mu neex dootoo leen ko defati di ngeen xam ni cin bokkul safin d'accord maa ngi leen di nuyu ci ñaareelu xaaju émission bi di ñaan euh, njéeme ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ñaanuma la dara man xaw ma ku yor téléphone bi waaye maa ngi leen nuyu rek mère yaayu njéeme nuyu naa la deuxième partie avec Malika pour parler de culture elle est bien placée pour le faire pour nous Malika bonjour. bonjour Pape Sidy. <laughs> très ravi de te retrouver. très charmante comme d'habitude merci beaucoup soo ma respecté wul nag dinaa wax li topp. <coughs> merci beaucoup alors di nuyu internautes yi di nuyu chers téléspectateurs j'espère que vous avez passé un excellent week-end Pape Sidi. oui nous avons passé un excellent week-end. ah alhamdulilah. po grâce nag moom mooy bëgg a rey damay niin rek. <laughs> massa. de rien. alors tey Pape jëmbe la ñu indi. jëmbe waaw. ku xam jëmbe xam na ne instrument de percussion la xam na ne que c'est pris c'est dans la culture. lépp lu ñuy wax danse jéem a def see alors son jusqu'à son origine ba évolution wam ñu xam ne ne que Djembé mu ngi sokkee ko ci empire du Mali avec Soundiata Keita au XIIIe siècle. Mm -hmm. mais en 1950 ci la ko Keita Fodeba euh, génnee à travers euh, toute l'Afrique de l'Ouest donc ñu xam ko donc euh, avec Keita Fodeba c'était un poète. instrumentiste. Mhm. ba pare nekk euh, dramaturge nekk dramaturge donc mu am ay ballet. dramaturge mooy la. dramaturge mooy ñii di def euh, wàllu dramatique. ah dramatique du mooy yi doon am RTS. waaw théâtre. waaw très bien. donc ñoo xamee noonu xam na ne ko aussi jéembe du du instrument boo xam ne ne moom kese dem c'est très rare ñu am percussion boo xam ne ne jéembe kese la mais dafa am ay accompagnement ñu waxee accompagnement ñoo xam dudumba xam kenkene xam euh, sambang loolu mooy nekk jéembe non non loolu ce sont les instruments qui accompagne les jéembe parce que jéembe nee neen c'est très rare ñu wane ko moom kese mhm. wala mu def benn live moom kese donc il faut qu'il y ait des accompagnements mhm. voilà donc loolu la en même temps aussi tey suñu invité bi il va nous parler des des palais d'Afrique noire mhm. waaw xam ne nekk parce que lii ñuy gis ci télé bi nii ñun am nañ ko fii mhm. ci studio bi. oui da ngeen dama bëgg ngeen xam ne tey comme leen di passé rek dañuy dañuy noos dañuy joué dañuy. dañuy joué invité bi moom mooy. Mansour Gueye. Mansour. oui. Mansour Diagne Mansour présentel sa bopp. salaamaaleykum maa ngi lay nuyu Pape. maa ngi lay fay Mansour. di nuyu Malika di nuyu sama gars yi ma àndal ak euh, cher internaute. donc euh, man maa ngi tudd Mansour Gueye di turandoo Mansour Gueye des Ballets d'Afrique Noire. waaw doomu xalifa Gueye. sa turandoo di def na lu rëy. <laughs> ah gis nga donc euh, su ma tee fii je peux dire que man maa fi représenté léegi paa comme étant l' général des Ballets d'Afrique Noire. Mhm. waaw. donc euh, tey Malika moo ñu invité woon donc ñu ñëw wan leen tuuti rek. Mhm. ci thème bu mu indi lan lañ ci def. lan moo la motivé nga dugg tey si les ballets d'Afrique noire waaw li ma motivé bon c'est très simple juste bon je dans le milieu en fait mhm. étant jeune ma doon ànd ak paa bi ci hôtel yi euh, et aussi euh, dans les sites touristiques donc euh, étant jeune nga nekk xale di gis sa papa di yëngu ci dara donc mën naa ne looy nampaloo quoi mhm. donc nga nekk xale di dem ak moom di ko gis ba tey donc mbégte la ndono lay doon mhm. ba pare je suis très honoré même tey ma dem tey ba nga xamante ne may assurer relève bi nga xamante ne ne loo xamante ne sama turandoo moo ko créé woon muy Mansour Gueye ki est euh, le président fondateur des ballets d'Afrique noire. Mhm. donc yaakaar naa mbégte la kon tey su ma demee ba màgg ba jël reen yi. Mhm. alors pourquoi les ballets d'Afrique noire parce que avant ballet Sandaga lañ ko woon wax pap mhm. ñi yàgg ci art bi ak ñi nga xam ne ne bon dans le milieu de Dakar Plateau yëpp. xamuñu les ballets d'Afrique noirs mais ballet Sandaga la ñu won wax donc li tax ñu won wax li tax ñu won wax ballet <laughs> Sandaga <laughs> waaw parce que après le passage de Keita Fodéba mhm. en 1957 ci la sama turandoo ak ay xaritam daal di créer ballet d'Afrique noire mhm. donc euh, marché Sandaga la jël turam parce que ci kaw terrasse bi ci la ñu doon répété di former ay artistes donc demoon neen ba nga xamante ne comme fa la ñu doon répété moo nekkoon seen lieu de moo tax ñu tuddee ko bale Sandaga. waaw mu gën a siiw ci tur Balai Sandaga. quels sont vos produits phares. bon on, a plusieurs produits phares am neen bu ñuy woowee Rakaju. Hmm. Degeju Nuit sénégalaise am na tamit bu ñu. bu ñu produits phares yooyu ay tëgg la wala ay fecc. non ak programme boo xam ne am na tëgg am na fecc am na lépp. bale à thème bale à thème parce que bale def naa dafa nekk bale boo xam te ne ne baleem yëpp spectacle yëpp thème la. benn boo ci gis bu nekk thème la. donc produit na bi ci gën a mag nag te gars yi gën ko ràññee mooy les Papa Mandeng bi demoon tournée euh, avec le papa Deykon Mor Thiam en l'an 2000 donc boobu nag ma nekkoon produit bi nga xamante ne moo gënoon cartonné ci produit yi bari. bàyyi Aline Badara waaw te mu nekkoon produit boo xam ne ne fii nii studio 2000 lañ ko enregistré woon. effectivement ah bon. waaw fii ah Ndiaye bale di ma ko nëbb <laughs> Modou Faye. alors comment ala day bale dégg nga comment intégrer bale ballets d'Afrique noire maanaam ku nekk artiste tey bëgg a bokk ci ballet d'Afrique noire nan ngay def. waaw xam nga ñun moom ñoo ngi fi ballet d'Afrique noire yaakaar naa intégrer ko nekkul lu jafe parce que nous nu sommes laa ku ci mel ni paa bi mu ngi fi ay coordonnées mu ngi fi man nit de même donc yaakaar naa suñu portée da nga ko yaatal ñëpp ubbil ko ñëpp. ko mhm. bëgg a bale bi ci boppam. Mhm. yaakaar naa boo ñu contacter nga ñëw toog ñu waxtaan. ñu mhm. wax la. tey sunu thème tey mooy djembé mhm. lan mooy particularité les ballets d'Afrique noire ak djembé waaw loolu dinaa ci sawar a tontu parce que boo xoolee comme ni nga ko waxee léegi djembé mhm. origine am pays mandingue la mhm. pays mandingue la léegi ci kaw loolu noonu dafa am ñuy wax guinéens yi ñoom ñoo révolutionné djembé indi showbiz donc euh, ce qui fait la particularité des ballets d'Afrique noire on est que ballet def noire dafa regrouper ñaari dafa boole Mali boole Guinée indi ci toucham en tant que sénégalais. Mhm. comprendre nga donc côté Mali amoon na ku ñu doon woowee euh, Gimba Diallo. Mhm. yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana. moom mu ngi intégré bale bi en 1963 ba 2015 mi ngi ci bale moom moo doon indi changé rythme typiquement malien. ok côté Guinée ñu amoon ku ñu doon woowee Oscar Camara. Mhm. moom moo doon indi moom moo doon rénové. di créer indi showbiz. donc ballet d'Afrique noire boole ñaar yooyu noonu Guinée ak Mali. plus léegi nag euh, kiw wu Sénégal. waaw donc ci kaw loolu noonu damay woo sama gars yi te ne man maa eh, sama gars ñu leen di ngeen toog ngeen ñëw. bu fee ngeen ñëw. Ah, benn bu ngeen bokkoon sànq. tëgg leen ko tëggaat leen ko ma xool yow grand xaaral après yéen da ngeen di way. waaw après ngeen way mais xaaral tëggaat leen ko tëgg bi ngeen tëggoon sànq yéen ñett génne maa maa ngi koy door a génne xam ngeen ku nu woo Pape Sidi woo woo ngeen dof woo mankan woo borom woo ngeen dof woo mankan woo woo <laughs> man mii ngeen woo <laughs> ay ca ñu dem yow nga looy way ay ca ñu dem sa do la mi ma ces gens. waaw tey ko foofu foofu na <laughs> barki rasulilaay euh, donc ñoom booy bii ni ñu doon way ci bambara mu ngi tekki mbokk yi ñu ngi ñaan yàlla ngeen gudd fan. Mhm. ànd ak wér gu yaram parce que fii ci àdduna gudd fan yaakaar naa moo gën a jafe loo gis. Mhm. donc way bi loolu noonu lay tekki. très bien en tout cas sa sa plan large bi dafa kaname parce que ñoom ñëpp dañu ñëw taxawee fii dafa kaname quoi léegi dañuy wax ñi ci garab. ñu ñëw ñii si ginnaaw <laughs> balaa muy jeex en tout cas Malika tu nous fais découvrir des choses extraordinaires chaque fois mhm. Euh, le djembé euh, les ballets c'est notre histoire c'est notre culture et mhm. aujourd'hui ils sont pas impactés par la Covid ah, amu leen fu ngeen liggéey nest pas ah metti na ci yéen de ba joxuñu leen 6000 <laughs> dégg naa ay 6000 am rek ku na ci man mu yónnee la wari la 6000 <laughs> ah c'est difficile hein comment vous faites pour euh, gérer ça waaw donc ñëpp xam nañ ne Covid bi metti na ci secteur yëpp mais lu tax mu gën a metti ci secteur ñii ni di def ñii di yëngu ci culture mooy que amatul prestation. Mhm. parce que yaakaar naa hôtel yi yëpp dañuy tere rassemblement. donc amatul prestation donc toute en arrêt. Mhm. donc euh, metti na wante nag dañ ci boole gëm yàlla itam. Mhm. waaw te xam ne yàlla moo ko fi teg dañuy ñaan li yàlla mu tel fee jóge. kan moo filmé woon kooku léegi. <laughs> am di yow la. kooku ngeen filmé foofu de day nuroog Lat <laughs> joxaat leen ma ko ah, ah, joxaat ma ko eh yow bàyyi <laughs> loo bokk ak Lat Joor. la. <laughs> kii nu mu kii mooy Omar Balde. Omar defal benn affaire pour yow. kii moom mooy. kooku mooy Babacar Banku. Babacar. Banku. bu li sa lonk-lonk yi nga lonkal ci kii sa jëmb bu am nopp bii nag la. waaw dëgg neexul. <laughs> kon sama gars yi bis na yëpp dañu am gellu tubaab loolu xaw ma lan la seen jëmbe yi am ay bayra tubaab yow yaay Omar Sidibé yow yaa yor bu ngand bi parce que da nga am doole yow tam nag mbër nga waroon nekk Omar ayca on y dañu def présentation bi rek mu jeex incha allah ani on ngi gi fi mu ne yow moom yaay way yaa tudd Idrissa Traoré yow mi koy aw ku la musóor naxu la sa piisu musóor ëpp na sa piisu robb yow yaay kan grand Ablaye Anne lii nga tee lu mu tudd junjung ah kon yii lañ naan rëkkal junjung yee ca siin waaw xanaa lonk-lonkal bi moom feer bi yaa ko ci dolli de ah, junjung day am feer waaw lii junjung du instrument séeréer rëkkal junjung yee ca siin moom lan la. ñii ñooy ballet ancien ballet Sandaga actuel ballet. d'Afrique noire d'Afrique noire. on les avait reçus aujourd'hui dans le Good Morning pour parler de leurs activités. Euh, merci à Malika de nous avoir donné l'opportunité de faire cette belle découverte. Mais aussi, merci beaucoup à notre invité de se donner la peine de venir aujourd'hui présenter ça à nos téléspectateurs. Les gars, autant que vous êtes, extrêmement cool. Vous êtes des gens talentueux. Euh, xam naa ni organiser le concert wala émission spéciale boo xam ne dañuy tëgg ay jémbére. incha allah comme namm ngeen. <laughs> te ñun tamit bëgg nañ ñii seetaan. li ñu namoon ci dem fekk ko ci place publique yi ñu fekk ko à ñu fekk ko ñu continuer di ko dund. Mhm. on va on va faire on Malika pare nga. incha allah pare ngeen de. <laughs> baax na damay xëy rek wala ne leen suba ngeen ñëw. <laughs> en tout cas merci beaucoup. maa ngi lay gërëm. di bàyyi nga gërëm quelque personne balaa mu jeex parce que Malika après dama koy jox mu def cëw ki fin alaaj taal ngol ngol balaa mu ñu dóor. donc euh, maa ngi gërëm sama mbokk yi parce que falaay laay tàmbalee. Mhm. di nuyu sama mbokk yi nga xamante ne sama côté papa la di nuyu tamit sama mbokk yi nga xamante ne sama côté yaay la mhm. di nuyu tamit sama am di jàmm yëpp gërëm bi loo ko baral ba waaw di di gërëm daal kon sama am di jàmm yëpp comme bu ma bu ñu limee dafay jël temps donc maa ngi gërëm ñëpp donc ñu ngi lay gërëm yow tamit ci déplacement bi Malika gërëmal gaaw merci beaucoup Pape di nuyu Yacine coiffure comme comme d'habitude ah waaw waaw Pape di nuyu Galoré euh, Afri pour le tissu tonton Chertal

première partie, notre œuvre de fiction, le roman euh, qui a pour titre Kalidou, les tribulations d'un jeune Foutanké, écrit par Atoman.